yaay ak ci réseaux sociaux yi sonko dal mu ngi wax mooy saagakat yi ak yoy ni yi télé di woté manam di invité ay saagakat xam nga nak man señ mi ñi señ mi ñang waaw man Ousmane Sonko mënu jangal jàngal saaga ci réseaux sociaux nakalul nako dal daal mënu maa jàngal saaga ci réseaux sociaux yi waaw ne ma waxal président day fen hmm? traité jabaru président de tous les noms président ak famem de tous les noms rakku président goro président ministre ya waaw yow bàyyiwoo sëriñ bàyyiwoo kenn di ànd ak ay saagakat diggante France ak États-Unis ak Canada yow nga ne yow danga ma bëgg a jàngal man man man man noppi man bu ma saaga wala bu ma wax hmm. ah moo ma ko jàngal de jàngal ko sama doom jàngal ko sama sët jàngoo samay jarbaat jàngoo samay mag ak samay rakk mooy toog ci réseaux sociaux yi daan saagawaate daan waate Euh, ba pare moom nee na. Mhm. Euh, li Macky Sall xam nga ñoom lii ñu fekk ni ne continuité la. waaw parce que loolu Macky Sall moo ko dugaloon en en vigueur la ñuy wax xaw ma nan la seen affaire yi tudd moom moo ko dugaloon. bi ko Macky Sall dugalee nag xanaa Ousmane Sonko encore une fois war ngeen koo tegati xanaa ku ci nekk dégg na la mu wax. nee na kenn mënta euh, tëj gémminu nit ñi kenn mënu leen a tee wax li ñuy wax parce que ci réseaux sociaux yi rek la ñu am pour wax. Mhm. démocratie bi day continuer parce que bu ñu ko tëjee loolu mooy wala ñu koy nappaate loolu mooy bëggatuñu démocratie ci biir réew mi waa léegi yow loolu yëpp nga waxoon euh, mënoo koo wannaat yaa ngi koy jéem a wannaat nag waaye mu mu ngi ko wannaat na ko mais am na lu des en tout cas daal interdit euh, naqarlu na et puis nag lu ci gën a daal mooy xale yi da leen ginnaaw bu leen récompensé ci def cérémonie bi ci suba gii ngon gi moom dafa recevoir def ak ñu waxtaan di leen conseiller nañ moytu réseaux sociaux yi nañ moytu nangam ndaxte loolu war nga ko apprécier Ousmane Sonko mu ngi war xali pour ñu future génération bon réseaux sociaux yi ku ci gis na nit pa niñ la yaré d'accord mo sax niñ la yaré parce que nit mën nañ la yar nga bax nga génn bon mm-hmm. parce que gis nañ fi ay doomi serigne ki khalifa ak doomi imam ak seeni façon de faire je me dis que nit ki mooy yar bopam gëm bopam

yaree sama bopp mooy respecté sama bopp ni da ngay respecté sa bopp boo respecté sa da ngay mën a respecté ki nga jàkkaarloo bu nawloo boppam dina nawloo Macky Sall man gis man am na yoo xam boo ma ko defee rek dama naa nawloo woo sa bopp ni da ngay respecté sa bopp da ngay am looy jomm da ngay am looy seet da ngay xool li war a génn ci sa gémmiñ gi léeg-léeg am na nga pardon du ñàkk ndax gé gémmiñ ak làmmiñ xaw ma làmmiñ ak xaw ma nan ñooy bëñ bëñ ak làmmiñ <laughs> bëñ ak ñu ñoo ñu ñoo mais lélé ñu maat des fois dañuy matanté waye dara tamit nga gémmiñ wax lo xam parce que wax mom hmm. mu baax rek yalla la dëgg la euh, nit wax lu safar bu nekké nak lim wax dara baaxu ci il faut nga am honnêteté tu fa nga ko waxee wala foo mu demee tu demandes pardon tu demandes tes excuses on a jamais entendu Ousmane Sonko demander des excuses hmm. Monsieur Ousmane Sonko il doit demander des excuses au président Macky Sall à Maham Diallo à tous les Sénégalais qui sont là Ousmane Sonko buy wax ci 44 euh, truc de 44 là. les 44 les les les oui mais na li mois, 80 mois wala 82 mois na li seen c'est pat ñi seen lag ñi ci ñak seen doom. mois. urgence Ousmane Sonko na dem ci hôpital dafa manqué nañu bàyyi tukku bi nañu liggéeyi en ce moment le le taux de chômage s'élève à combien de pourcents. Mhm. alors que Macky Sall bàyyiwu ko non mois il faut qu'on soit sérieux. Taux mm-hmm. de chômage il faut augmenter trop. Mm-hmm. quand on va dans des directions on trouve des gens qui ont ramené 400 personnes 700 personnes D'une 000 pour l'aide, parce que qui fi daf recruter en tant que politicien. Mm-hmm. mais ils recruter man mën 700 600 ils ont voté pour Ousmane Sonko wala 650 wala 675 wala 690 L'autre, ils ont voté pour Ousmane Sonko parce que ñoom dit qu'ils ne fi ñu langue. dañ fay hmm. mais comme que Ousmane Sonko a na leen man su ma emploi ah ils se disent que ce gars là on va voter pour ndax fi fi fii ñu nekk ni ki fi ñëw bu ñëwee amun ñoo embauché te même bu nekkoon ñooñu voté wuñu pour ñoom ce sont des sénégalais. ce sont des sénégalais autorail bi wàcceewu leen fi. Mhm. avion bi wàcceewu leen fi fii la ñu juddoo màggee fi. Mhm. kon ñooñu war nañoo mën a bokk ci société boobu ñu nekk war ñu leen a dàq ku ci nekk war nañoo set sa compétence. bien vrai que dañ ne état du créer emploi du def mais am na lu mu koy taxawale ban nañ def koy créer mhm. tey direction boobu man maa nga foo woon dañ ma jëloon pour Fabéré wala pour lii wala dañ ma yoon rek may toog léegi bon Fabéré bi ñaata la woon. bu nekkee arrangé wu loon si c'était cent mille francs mën sax cof tuuti. wàññi bu la neexee deux euh, vingt vingt mille xam nokoy mhm. gérer. mais tay buñ ko bëgg gérer mais nak non non ki fi nekkoon lañuy défantel defanteel maintenant qui va payer les qui va payer les pots cassés ces gens là ces on a euh, euh, honorable personne yi noble nit ñi noble sénégalais yi ñoom ñoo nara fay les pots cassés. Mhm. parce que damay défanté ak directeur bi fi nekkoon lolu kessa la dañuy défanté ak directeur parce que da nga da ngay dégg ñu ne diw mako fi indi won mais diw boko ko fi indi non daf ko fa indi won parce que sénégalais la. Mhm. su jaarul yoon fexeel ba empl ñoo ñu 400 personnes yooyu wala 700 personnes yooyu jaar jaar yoon tey jii la ba mais nag seen xol la bien vrai que ñi ngi dox ci dicté préparé mais seen xol moo leen ko may parce que Ousmane ko bu ci àndu woon wala Diomaye àndu ci woon dina ko wane koy eh, arrête ñii jéem leen a ut foo leen recaser parce que nag port yaatu na aéroport yaatu na euh, LONASE yaatu na nañ waxtaan wax dëgg ca la. Mm-hmm. ñi ci xaj bëri na. ñi ci xaj bëri na nañu bàyyi nit ñi ñuy jël père de famille yi. ñuy jël di leen génne di leen dàq ko arrêté. Mhm. loolu mbokk yi mooy kàddu yu ndey Sow Layla mu nekk suñu gan ci Public Chrono dañuy continuer ci ba tey ci actualité bi man ndax Cheikh Yérim Seck moom moom.